te kenn ku ne am ci jaaxle te moom rek moo ci man dara mu dindil ndu ko fii ci àdduna si ba mu jeex tàkk loolu mën na ko sañ na ko te am na kàttanam yàlla nañu ko defal ginnaaw loolu itam ñu tàllalaat suñu loxo di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy boroom kattan te mooy boroom mbam te mooy borom sañ-sañ moom mun Mountakha bi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba te li xam nañ ne iteem du dara lu du doomu aadama yi ak lislaam yàlla na ko suñu borom gën a dëgëral gën koo kattanal ba li nga xam ne moom la yéene ci doomu aadama yi yéene ko ci lislaam mu def ko ci definu kawe njortam te ànd ca ànd ko moom te jaje ci ngërëmu suñu borom ginnaaw loolu itam ñu ñaanal képp koo xam ne lislaam mooy sab tool la sañ yàlla na suñu borom gën a dëgëral gën laa taxawal ba li nga xam ne yéene nga koo defal lislaam nga def ko ci defin wi koy sa njot te daje ci ngërëm suñ borom te ànd te ànd koog ngi ko war a àndal ginnaaw loolu nag ñu xam ne ñu ngi nekkoon ci ajuma yi weesu yëpp di waxtaan ci li nga xam ne moom la ñu suñ borom boole te boole gi nu boole itam bam nu boolee dafay waxtu wu ne day indi ay yoo xam ne day gën a dëgëral boole ga njëkk wu a waxtaan ci boole gi nga xam ne bi mu nu boole ñu nekk ay jullit mu mu defal nu loo xam moo nuy fàttali ne ñun ñi am na luñ bokk ñu wax ñu misaaloon ko ci julli juróom misaal ko ci julli korite ak tabaski misaal ko itam ci aj ginnaaw boobu itam ñu wax ne bi nga xamee ne yëg la yëg na ne yéen de am ngeen lu ngeen bokk te bokk lañu la ñu defal defalu nañ leneen waaye bokk lañu defal bokk nag xam nañ ne koo bokkal ku nekk te la nga bokk ak moom bëggoo ko koo bàyyee danga seet noo ànd ak moom ci àndinu rafet loola moo tax lislaam ak bokkoo la def defut leneen ak bokkoo nag mooy am ngeen loo xam ne yéen ko bokk te li ngeen bokk itam kenn ku ko bëgg bàyyee moroomam amu ci loola nag tax na loolu la la ci la lislaam taxawee mooy ak bokkoo looloo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne bu fekkoon ni jàpp ab xarit day ma wax ne kon Aboubacar mooy sama xarit waaye nag ak ak ab xarit dafa amul ci lislaam li am ci lislaam mooy ak bokkoo looloo tax itam bi mu demee ba Madina la mu def mooy dafa bokkale ña nga xam ne ñoo nekkoon dëkke woon Màkke ak ñi nga xam ne ñoo dëkke Madina loolu nag kon moo ñu wan it wan itam ne lislaam bi nga xamee ne def na ba kaw googu nga xam ne moom lañu ñu boole ñun jullit ñëpp mu daal di andi nag yoo xam ne moo ñuy xiirtal ci luy tax ba ñu mën a sos famille boo xam ne day tegu ci fi mu war a tege jaar ci lim fi mu war a jaar loola itam ni mu ko defee mooy dañu dañoo defal sos ab famille mu doon loo xam ne lépp njariñ lay luy dellu si waat ci ki nga xam ne moo ko sos ndax benn rek ci misaal niñ ko waxee woon ci ajuma ji weesu sa doom ji nga xam ne moom nga am te yàlla dogal mu teel fee jóge buñ ko dee ñaanal buñ ko dee jullee li ñuy wax yàlla na ko yàlla def ci sa ci saw yiw kon loola kon mi ngi lay xiirtal ci nga góor góorgóorlu ci tax am taxawal ab famille yi ginnaaw loolu itam mu doon loo xam ne wax na la ne soo amee doom joo xam ne yar nga ko ci ni mu war a jaar ni mu war a jaar ba mu jaar fi mu war a jaar boo fi jógee itam day mel ni sa àdduna sa jif du dog ba mukk kon loolu itam day la lay gën a xiirtal ci nga war a taxawal ab famille ginnaaw loolu itam bi nga xamee ne taxawal na jullit ñi wax leen liñ bokk di leen fàttali loolee ñu bokk ci waxtu bu nekk delloo si waat dellu si waat na itam fexe ba lépp loo xam ne mooy war a andi ak ak jaxasoo wala muy indi ak juwoo ci biir jullit gi jullit gi mu fex wala mu tere mu tere ko ci terrain wu tar looloo tax ñu gis ne mu ta mu tere jëw tere rambaaj tere iñaan ak yépp yoo xam ne doon na luy war a mën a indi ak ak ñàkk a déggoo ci biir jullit gi ginnaaw loolu bi nga xamee ne def na ko itam fexe na ba li nga xam ne mooy jullit ñi nañ nañ waxtu wu nekk nañu yëg ne am na loo xam ne ñoo ko bokk yëg-yëg boobu nag na nekk ci seen xol na nekk seenu nañ koy dund nañ koy doxe yëg-yëg boobu itam lim lim andi andi na ko ci andiin woo xam ne dana tax ba ñun waxtu nekk ñu yëg yëg yëg boobu yëg yëg boobu te di ko dund ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne képp koo xam ne wax nga ne ab jullit nga te liy ci jullit ñi ak li ci ak li ci liy xew ci jullit ñi ak li la am sa yoon nekku ca kon noonu na nga xam ne boo waxee ne ab jullit nga itam jullit nga wérul delluwaat di wax itam ne jullit ñi day ñi ngi mel ni buñ leen doon misaal dañu ci ni nga xam ne ni nañ yërmant yërmant yërëmantee ak ni nga xam ne ni nañ bëgg bëggantee dafay mel ni benn jëmm ak cër ya ca nekk xam nañ ne cër bu ne ci jëmm ji benn ca benn cër bu dara dal rek beneen yeneen cër yi dañ koy yëg kon loolu ba tey bëgg na dugg dundal ci suñu xool wala bëgg naa def ci jullit ñi ñu yëg ñu am yëg-yëgub ne ñoom ñi ñoo bokk benn yëg-yëg ñoo bokk ñoo war a bokk benn taxawaay ñoo war a bokk ab jëmukaay loolu lépp kon doon na yoo xam ne lislaam da ko da ko taxawal ngir bëgg rek li nga xam ne mooy jullit ñi ñu bokk benn yëg-yëg xam ne ñoom ay jullit lañu xam ne lu dal kee man la dal lu dal kële itam man la dal kële itam ne li dal li dal kii man la dal la dal kële itam man la dal noonu lañ ko war a dunde loolu moo tax ba yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey dellusiwaat di ngir bëgg rek ñuy yëgu waxtu wu nekk ne ñun dey ñu am na loo xam ne ñoo ko bokk te loolee ñu bokk yitam kenn du ko bàyyee sa morom kon nag war nañ koy yëg di ko dund loola moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xam le ne képp koo xam ne ab jullit nga te lii sa it lii sa taxawaay mooy foo fekk mbokk muñ war a dimbali ci mbokk jullit yi nga taxaw jullit dimbali ko nanga xam ne yàlla woon waxtu moom itam mi ngi taxaw sa wet waxtu wu ne dana la dimbali delluwaat itam di wax ne képp koo xam ne fekk nga ay jullit boo xam ne nekk nga ci nekk na ci ay jafe-jafe nga fexe ba jafe-jafe yooyee nga dindi ko ci moom na nga xam ne ëllëg fa nga xam ne fa la jafe-jafe dëgg nekk fa nga jaaxle di nekk dëgg-dëgg bu boobaa sa suñ borom na taxaw ci sa moom it jaaxle googee nga xam ne moom nga nga am foofee te kenn mënu ci dara ko dul moom bu boobaa dana taxaw sa ci sa wet teggil la jaaxle googee teggi la jafe-jafe yooyee delluwaat wax tam ne képp koo xam ne doon nga ab jullit xëy na gis nga ci sa mbokku jullit loo xam ne doonut loo xam ne loo rafetlu la wala lu ñu ñi rafetlu loolee nga gis te nga xam ne doonut loo rafetlu doonut loo xam ne nit ñu rafetlu nañ rafetlu nañ ko itam waroo génn ci mbedd mi di ko weer waroo génn ci mbedd yi di ko wax waaye li nga war a def mooy da nga ko war a suturaal ndax loolu boo ko defee bu ëllëgee suñ borom am na lum la xamal loo xam ne ñëpp ya kenn xamu ko waaye te bu ko feeñaloon sa sa yaakaar naa nit ñooñu la ngay la ngay bañ ci la bañ ci waa jaww mën nañ ko bañ ci yow la ngay bëgg ci kooke itam la nga doon bañ li nga doon bañ nit ñi lam doon bañ moom nit ñi yëg ko wala lam doon bañ nit xam ko suñ borom am na lu mu la dencal loo xam ne bu ko feeñaloon sa yow itam sa la ngay la ngay la da nga am kars danga am kersa la danga am da nga am ak jaaxle ci sa bopp te loolee nag bu fekkee ne yaa ngi koy defal sa mbokkum jullit yàlla nee na moom itam bu ëllëgee nanaa la ko defal kon loolu lépp day bëgg rek nañ bokk ab yéeg yëg nañ bokk loo xam ne benn bëgg-bëgg la nañ bokk xam ne ay bokk lañu te bokk googee liñ bokk kenn du ko bàyyee sa moroom koo xam ne nag la nga bokk ak sa moroom doo ko ko bàyyee bu mukk war ngaa rafet war ngaa jéem rafetal sa ànd nag moom ndax loola mooy tax la ngeen bokk ngeen mën koo bokk ci bokki nu rafet loola mooy tax itam la ngeen bokk ngeen mën koo dund ci dundi nu rafet loolu mooy tax itam ñu gis ne lislaam nag bi nga xamee ne mi ngi nuy xiirtal ci ñu yëg mbokk googee te ñuy yëg li nga xam ne moom lañ bokk tey bokk benn yëg-yëg doonul loo xam ne dafa wax ne day wax ne da ngeen koo bokk ngir yéen a bokk nekk ci àdduna si kese wala day wax ne góor-góor leen ci ndax da ngeen a am lu ngeen bokk waaye dalay dalay dalay da koy jaara jaarin woo xam ne faw da nga am yëg-yëg bu rëy ci boo ci war a def loolee ndax kenn ku ne xam na ne mënoon naa wax rek suñ borom ci sañ-sañam mënoon naa wax ne bu ngeen am bu ngeen amee gan na ngeen ko teeral waaye ni mu ko waxee dafa doon waxin wu rëy woo xam ne ku ko dégg ku ne te xam ne ab jullit nga te ndëgg jullit nga di dëgg ci yow da nga daal di am dana am lu mu def ci yow ndax bu waxee ne képp koo xam ne da nga gëm yàlla gëm bis penc ci boobee nga xam ne fa la ñuy daje ëllëg ngir fay kenn ku ne la doon def boo amee ngan na ko teral mu delluwaat wax itam ne képp koo xam ne da nga gëm yàlla gëm bis penc ci boobee nga xam ne danañ fa daje boo dee deeg sa dëkkandoo na nga dox na nga doxee nag moom ci doxin wu rafet bu ko lor mukk loolu lépp waxin la woo xam ne ngir bëgg a yee suñuy yëg-yëg ngir bëgg a yee itam suñuy pas-pas loolu moo tax mu waxe ko noonu kon ñu gis ne lépp loo xam ne yàlla dañu koy digal suñ diggante ci suñuy diggante ñun li ci ëpp dañuy fàttaliwaale pas-pas bi nga xam ne moom lañ bokk dañuy fàttaliwaate ëll dañuy fàttaliwaale ëllëg gi nga xam ne dañ bokk taxaw ci kanam suñ borom mu attenu ci li nga xam ne moom lañ doon def ci àdduna si lépp kon loolu dañuy wan ne lislaam moom li nga ni nga xam ne ni lay digalee digal yépp day doon loo xam ne day laal sa pas day day yëngal dafa war a yëngal sa pas-pas dafa doon loo xam ne dafa war a yëngal sa yëg-yëg loolu mooy tax loolee boo koy def doo ci xool ma sàmba doo ci xool ma demba doo ci bàyyi xel ma sàmba doo ci bàyyi xel ma demba waaye suñ borom nga ci bàyyi xel ak pas-pas bi nga xam ne moom ngay dund tam nekk ci yow kon loolu moo doon loo xam ne lu am solo la loo xam ne man nañ war nañ koy bàyyi xel ci xam ne li nga xam ne moom lañ bokk ak ak niñ ko war a doxalee lépp suñ borom bu mu koy bu nu koy bu nu koy digal dañu koy digal ci fàttalu li nga xam ne mooy li fas ci suñu xol te loolee moo doon loo xam ne dañ ko war a dund ci suñu cër war koo feeñal ci suñu jëf loolu kon yàlla na suñu borom mi nga xam ne moo nu boole li ñu lim nu boole te bëgg ñu ànd ko ci àndin wi li mu bëgg ñu ko ko tam doon loo xam ne itam loolee suñu njëriñu àdduna doon suñu at njëriñu alaaxira lay doon bu ëllëgee moom moomee nga xam ne nag moo nu boole loolu jox nu matukaay yi tax ñu mën koo sàmm mu mën koo doxee yàlla nañu dimbaleel suñ bopp ba matukaay yooye ñu di ko jàpp niñ ko war a jàppee di ko doxee niñ ko war a doxee ndax loolu mooy tax suñu jullit rafet loolu mooy tax itam li nekk ci ñun ñu man koo dox ci dox yéen wu rafet loolu yàlla suñ borom loolu moom moom mu nga xam ne moom moo def loolu lépp te nga xam ne moo am sañ-sañu man nu cee dëgëral moo am sañ-sañu man nu caa saxal yàlla nañu ca saxal ci sañ-sañam ba yàlla nañu ci dëgëral ci ci ci kattanam ga ba li nga xam ne moom la bëgg ci ñun ñu jaaree foofe ba lii nga xam ne moom la ñuy dël dël bu ëllëgee ñu mën a dajeek moom ci dajin wu gën a bu kawe suñ jot ci dajin wu rafet loolu su borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal allahuma la tadaa lana damban illa xafarta wala hamman illa farajta wala daydan illa xadayta wala maytan illa rahimta wala maridan illa sufayta wala xaajatan hiya lana salahun walaka ridan illa xadaytaha ya arhamar rahimin ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yéen ñi nekk fii ci Sénégal wala bitim réew te am fi kër wala villa